Siteu maa ngi lay fay di wax ne jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul fay naa la bubs maa ngi lay nuyu Papa Sow waaw waaleykum salaam Boubacar Diallo ñu ngi Sénégal yëpp dañ leen doon xaar ñoom ñaar Siteu gars yi dañoo xam ni yow mii ndaanaan nga ñu jox la cër respecté la waaye jox la koo xam ni keroog ba ngay bëre li nga xam ne moom moo di préliminaire mi ngi teg fii nga dem ba garab yi fekkante ci kaw tey ngeen daje ci kaw nga jox ko respect waaye dafa mel ni bés bi da ko ñaanoon ba bés bi tey yéen ñaar ngeen daje. noo waajalee bés bi ndax lépp yemb na dafa mel ni at ak lu teg wala ñaari at yaa ngi waaw dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla di nuyu fi nekk di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu yaay donte ñu ngi fi wala tamit nekkuñu fi ñu ngi di nuyu. di ku nekk si stade bi ñu ngi lay bëggee di lay siyaare waaw di war ne daal làmb ji yàgg na yàggul su ma nee yàgg na bañ ko jàppee yàgg na. yàggul ñun lii lañ gëm mooy ñu live mooy su ñu lépp comme que keneen ak keneen ñu ngi xëy di nekkee si leneen kon waaw dañuy sant man sant rek laa ko jàppee waaw mais lu mu gaaw a ñëw parce que maam Serapha ñu bëri ko xool leneen moo ñu gënal. mais si te xam nga kii ndaanaan bu ne am na moom ngoon fii ndaanaan bu ne yëkkati na la def la fii lu leer nañ ndax ñun dañuy doon toog di seetaan télé ba yàgg ñu ne nañ dem seetaani ko ñu xam ni dafa mën takkusaan mën timis mën gee fu mu guddee rek fu mu yàggee rek am na loo xam ne moom lay génnee ndax yow waajal nga loolu yëpp. ma def sama bopp xam soo may wax boo ma tagee wax ma sama bopp ma kontaan mais wax ma sama bopp ma dégg. wax la sa bopp yow. maa ngi ñëw ci yow mais moom xamaloo ko dara. sama bopp laa gëm moom lay toppatoo pour l'instant. Euh. lu mu la mën a wax si bi hmm. damay assuré képp koo xamante ne yaa ngi may bàyyi xel man dama lay bi dama ko fonk kii amatuma lu ma koy wax wax naa ko ñaari yoon ba ñetti yoon kii ndaanaanam bu ma taxee fii di koy wax yow du jeex te man gisuma ko moom man li ma laa gëm man loolu ñaan yàlla ñëw indi ko kii dafa gëm combat bi da gëm jaral ko nekk woo ay mbokkam woo ay nitam mu jaral ko mu def ay ay réunion xamante ne woo ay mbokkam ak ay mbokku boppam kon kii bu woowee ay mbokku boppam man dinaa woowe samay nit bopp man mbëru askan laa man ñëpp ma bëgg parce que maam Serap que du ma def ni may xeeree mais li ma defee si combat ngir yàlla. nañ ma bàyyi ma bëreeg moom buñ ma jaxaseeg doomu aadama yi parce que foofu rek lañ ma mën a jaar jaxase ma ak nit ñi pour nit ñi mere ma mu ñëw kii nag gëm boppam ñëw ñu bëree ci fulla ci fayda parce que man serefal papa lu mu xëy di entraîné ma xëy entraîné lu ko raw papa lu yaxam min man nii di mag man may xale parce que alxuraan sama yax di ni mun lu ko raw billaahi wallaahi wa taala kii lu mu ci bañu bañ moo si bakkan bi bu laajee bakkan ma joxe sam barke alxuraan lu ko bëgg benn fan ma bëgg koo gën ko bëgg fopp loolu nag laay wax maa ngi woo samay mbokk xoyaaw fóole séeréer nu xanaa leyaw séeréer nu xanaa leyaw séeréer ñu xoyam na combat ka xatum na jongwaar a ñoojo bo fayaa ko ñu xoyaa fopp xoyaan dimale fopp fana ngaram si dam Samba Dia Diofior gore woya fo faaju palmarin wasimo leng faren siktam ni o sereer refum falweke ngaram bo njang ke njena e eh, kiini mogo wax dafa leer ñun ay séeréer lañ ñun bëre moo nekk suñ deret lamba duñ ko dañ koo daj lii suñu natu la waaw maa ngi ñaan rek ndam maa ngi lii di la respecté dégg nga li nga xam ne moom la Siteu wax ma bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal ndax ñëpp ñu ngi toog dina seetaan ba noppi nag ñu soog wax. waaw xanaa roo nuyoo war rek quoi. waaw waaw di nuyu kilifa diine yëpp Sénégal fu kilifa dina nekk rek maa ngi lay jaajëfal ak kilifa aada yi kilifa yi doog seen télévision di ngi seetaan di ngi ñaar ñëpp yàlla ñëpp am jàmm yàlla Sénégal am jàmm. Boubacar yow un grand monsieur si yow laa jëf commencé ci wàllu combat bi doomu ndey Abou Ngay Serigne Thiané Faye. sa def sa participation. incha allah incha allah rabbi Sénégal ñëpp dañ koo xam muy ndaanaan Sénégal ñëpp dañ ko respecte ndax bu nee Siteu mooy bëre kër yi kenn du génn dañuy toog si seen biir kër ñi am paas teel a jënd seen billet dem estade ndax moom képp koo xam ne lang naag yow ci takkusaan sa takkusaan boobu day metti say mbokk dinañu tiit say xarit dinañu tiit say dëkkandoo dinañu tiit waa réew mi dinañu la tiital ndax di nga génn ci combat boobu ndax yaakaar nga ni le premier Siteu mii di mën a génn ci moom Papa Sow. waaw Siteu champion la daa prouvé prouvé ay ma ne ko Siteu champion la daa bëre prouvé mu ñëw egg fu ñu war a egg ndax fii place bi kenn du ko kenn du ko maye dañ koy jaay am prix c'est le prix. ba tax maa ngi ko jox cëram bu mat sëkk champion la war dajeeg champion maa ngi ko jox cëram bu mat sëkk waaw nekk ci li ma a nekk rek. yow da ko jox respect daal. non man doomu aadama laa jox respect. respect total ku li doomu aadama rek jox naa la ci ak foo bokk ak foo féete. Euh, xam nga le premier. combat bi dafa yàgg. waajal nga waajalaat far corona bi ñëw jaar ci biir moom mu waajal waajalaat fu mu nekk nii dafa mel ni li ci des bareetul ay fan dong ci des le premier ngeen war a sëgg bëre tey sëgg ak sëgg bëre ak Siteu réew mi yépp xam nañ ne neexul. xam nañ ne neexul. neexul tëgg bëre ak Siteu neexul waaye waaw ah, Siteu champion la champion bu mag la man nangul ko léppam nag yëkkatil micro bi moom fu mu taxaw it nangul ma sama lépp bu ñu wax mu ne kii dafa mën a bëre dafa mën a xeex bu may ñëw tey di séntu Siteu mu ngi fecc maa ngi koy xool laa seen inquiété wu doole ko gën a pare Siteu yaa ko gën a pare dafa fecc ma xool ko mu leeroon maa ko gën a pare kon dama koy daal incha allah billaay wallaay billaay wallaay taalaay dama lay daan barke alxuraan li ma doon ragal ci moom laa gisu si moom li ma doon ragal ci moom gisoo ko ci moom gisoo ko ci moom boo dama koy daan le premier incha allah moom nee bu jaree bakken sax da koy def bakken dala koy jox bakken xam nga ci li koy commencé bër bu jël combat te boo yéeg fi sànq yëpp boo yéeg sànq ñuy fecc seen xotutaay dafa goldeer ñuy fecc nga xam ne ñii dinoo toog dinoo ndër moom fu mu taxaw sama tànk yi pour gën ko liggéeyaat ndax ma lii boo ko jëlee mooy noonu. tegal sa tànk ma xool. non waxatuñ ko lii dafa fecc ma xool ko man ma ginnaaw mu fecc. Uh-huh. sama xel gën a dal fa laa doon xaar ci moom. mu ne Siteu dafa fecc xelam gën a dal. wallaay azim mu xool tànk Siteu ne ko Siteu dama nga liggéeyaat say tànk Siteu lay teru ci loolu. xam nga moom ba léegi day laajte xaw ma dafa xam xaw ma dafa bëgg mais man dama la wax ne kii kii yi mu soxla yooyu noonu ay communication yi ay xëcc yi ay tontu ay réponse man nekkuma ci loolu kii dafa wax dafa wax billaahi wallaahi wa taalaahi man waxuma billaahi waxuma wallaahi waxuma man waatuma damay ñaan yàlla mais dama la ne man non incha allah moom nga war a njëkkee si lépp mais dama la bëgg a xamal benn affaire Issa Gui xamal lañ am xamal lañ am si combat bi Papa Sow ku baax la Papa Sow kuy jël référence ci communication jël ko Papa Sow kuy jël ko référence si maanaam mbër bu am respect jël ko mais ñi xamal la ñuy wër pour jaxasamaak àdduna xool luñ may ñaanalee ñuy dog ma non non grand ñëwal nga indi sa fula ma indi sama fula barke alxuraan yow loo ci bañul bañu ma si dara yow ba xool ma yow man ni muy guddee yow xool ma. man mu gaaw yow bu ma la ma tànc si dëgg tànc tànc tànc. man damay woo parce que xale laa te bëgguma topp sama jeunesse. bugguma topp mbooloo bi topp sama ginnaaw wallaahi maa ngi ñaan ci Baay Faal bi ma jéem pour doon maa ngi ñaan képp ki góor yàlla nag ma ñaanal parce que maam Sara ma fekkee bis ma mu fekkee ko jàmm maa ngi woo samay mbokk di woo ñi may jàppale surtout fou de poids lourd Mansour Diong maa ngi lay woo pour nga jàppale ma di woo madame ki nga xamante ne Aminata Fall Tall FAO maa ngi lay woo sama yaay ji di woo sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke nang ma jàppale ci combat bi di woo Diamaguène banlieue bi ak li ko wër lépp yëmbal Kër Massar Buul parce que maam Sara Fall parce que maa ngi leen woo ndax leer na ma leer yàlla kii fa mu dëgg maa ko du fans billaahi sant bañ na nag foofu la dëgg bay naa ko ay mbokk boppam mais billaahi kii seen biir kër sax am naa fa ñu ma bëgg Euh, Papa Sow. dégg nga cité. mi ngi woowee waa parcelle sa biir kër sax. ñu nekk sa biir kër nee na fans yi. mi ngi sa biir kër. waaw moom mooy sama premier fans da xamul loolu. dégg moom mooy sama premier fans. cité mooy sa premier fans. nee na man référence laa. a référence man ku wax loolu rek mooy am na soppi si yow. man nee naa tu es un grand monsieur. man am naa soppi si yow. boo ne Boubacar tu es un grand monsieur mooy am na cofeel ci man ci moom léegi nag man loolu moo tax man bu ma def lu may xeebee moom na ma bàyyi ñu ñëw bëre rek bu dee def may bàyyi ma dem mu bàyyi ma dem bu ma bàyyi ma dem man damay agressé de dem may dem sama yoon barke maam Serafal. bëre ci ci fulla fayda ci jom man kontaan man bu dee dinaa dugg ci digg géew di am lu may tiit man may bàyyi bëre man xamoo loolu man jëf jël laa xam. liggéey rek laa gëm. mais mais Papa ba tam du tiit de. waaye kii di jàmbaar mais kii lu ne ñàpp la xam nga ñàpp bu naaj bi ñëwee day wàccaat man lu ne nder laa loolu du jeex kii bëri naa ko deuxième combat mi bëri grand combat ba tey yàlla defal lii ndax moomu moom mais yàlla na ko yàlla jàppale moom. Hmm. yàlla na ko yàlla may gudd fan. Hmm. ambition yi mu am. am ba mu des combat bi le premier août. Hmm. yàlla naa ko daan le premier août ambition bu mu am yàlla na loolu ñaan la taxawal man man man man dam bu mujj bi rek loolu ñaan la mi ngi lay ñaanal ñaan ne yàlla la daan le premier août waaye sa ambition ne continuer kon carrière bi daal ne continuer la lay ñaanal fu mu nekk nii. waaw man balaa may tontu damay profité di gërëm euh, président équipe jàmbaare suñu académie bu ko teg ci loxoom di nuyu bureau bi yëpp di nuyu le doyen Balla Diouf ma àndal mu bàyyi yitteem ay dem Ibulaay Balla gars yi ñoom bëri ñoom franc Goro Sock gars yëpp ma lim tuum noonu daan seen. Ah, ñoom ñëpp quoi maam sa fàttewuñ kenn ah Pape Gora Papa Gueye gaa yëpp di woo autorité parcelloise yëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xamante ni kilifa nga nekk parcelle bi ñu koy ci combat dellu encore ci beneen face to face di dig daje incha allah les premiers arène nationale ànd ndoog PAF production ànd ndoog ITV ànd ndoog parcelle 1 ba